bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu ñoo ngi ñëw ngir fàttalente ak yéen ci lu aju ci ngëneeli fukki fan yi njëkk ci weeru fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski day bis yu rëy di bis yu màgg di bis yoo xam ne mooy bis yi gën ci mboolem bisi àdduna yi أما في حديث بوخامن البخاري جنن وجلك ابن عباس من يرنتبي صلى الله عليه وسلم نينا أمول جن جف جباه جو خامن نت من كويدف لغن اليالا دفال كوكو تفكي فاني يي ما يفكي فاني يجاك تفكي تبسكي ما نام دال بولين خير جامو يالا يب يتجن مو ييغا خامن لنكو دف تفكي فاني يجاك تفكي تبسكي yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu waxee loolu saxaaba yi dañ na ko ah ba ci jihaad sax jihaad xam ngeen ne lu rëy la ci lu bari ab tuyaaba ay ay tuyaaba loolu moo tax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee li saxaaba yi na ko ah ba ci jihaad sax yonent bi ne leen waaw ba ci jihaad sax xanaa ba mu des waajoo xam ne daa génn këram joxe alalam jëpp ci yoonu yàlla xeex ci yoonu yàlla bañ faat ko ca kooku daal la tuyaabam moom mm, ëpp lépp waaye lu lool moom jëfal yàlla jaamu yàlla ci fukki fan njëkk ci yooyu tabaski moo ko ëpp solo loolu xadis la boo ne bu wér la bokk na ci liy wane màggaayub bis yi ñu nekk mooy dafa rëy ba yàlla subhaanahu wa taala waat yàlla xam ngeen ne du lu waat du waat ci lu ndaw lépp lu mu waat loola lu reey la te yàlla waat na ci dana jàng ci alquran yàlla wax ne wal fajr wa layaalin ashr wa shafi wal watr layaalin ashr fofu moy fukki fan yi ñek ci wëru tabaski loolu moy wax yi li ëpp ci borom xam xam tafsir yi te sax borom xam-xam bu mag bu ñu wax alxaafis ibnu kafir nee na lii mooy li wér li moy li wér kon layaalil ashir yàlla mi ngi ci jublu fukki fan yi njëkk ci wëru tebeski waye yàlla watu rek ci fukki fan yi wat na ci yeneen ñaari fan yo xam ne ci biir fukki fan yooyu la nek ta moy wax gum wax na wa shafi wal watr achafi foofu bala xam xam yu bari nee ñu mooy bisu tabaski bi al watri mooy bisu arafa mooy juróom-ñeenteelu fan ci tabaski loolu moo tax sax boroom xam-xam yi werante ci ñaari bis yooyu ban mooy bi gën ci mboolem bi ci adduna yi bu dee lu mel ne ngirum Malik ak ngirum Shaafi'i yi ak lenn ci Hanaabila yi nee ñu bisu Arafa te mooy bisu juróom-ñeenteelu fan ci yoru mooy bis bi gën yi yëpp euh, bu dee yeneen boroom xam-xam yi nag ñoom dañoo jàpp ne bisu tabaski mooy bis bi gën ci bi ci àdduna yëpp lu ci mën a am rek moo xam bisu tabaski bi la moo xam bisu arafa bi la day dugg ci biir fukki nga xam ne mooy njëkk ci weeru tabaski bis yooyu ci la yowmul xajjil akbar nek nga xam ne borom batay ba tey wute nañ ci ndax mooy bisu arafa wala bisu tabaski bi waaye daal bis la yu màgg yoo xam ne rëyaayam moo yàlla subhaanahu wa taala wat kon loolu matna naa bàyyi xel bu baax a bismillah kon ñu ñëw ci ñaareelu audio bi ginnaaw boo xamee ne xam nañ lenn ci ngëneeli fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski ñu xam ne nag dafa am ay jaamu yàlla yoo xam ne yu ñu sàkku la ci diiru fukki fan yooyu jaamu yàlla yooyu am na ci yoo xam ne moom ci fukki fan yi dong lañ ko mën a def kenn mënu koo def ci yeneen bis loola ba tey day gën a firndeel ngëneelul bis yi nga xam ne dafa am jaamu yàlla yum jagoo jaamu yàlla yooyu bokk na ca lenn ci jëfi aj màkka yi xam ngeen ne aj màkka ay weer la yuñ xam comme ni ko yàlla waxee waaye am na ci jëf yu ñu jëf ci aj màkka yu bokk sax ci faratee aj maanaam ci ponki aj yoo xam ne ci diiru fukki fan yooyu lañ koy def lu mel ne taxaw arafa nga xam ne ñu ngi koy def juróom-ñeenti fan ci yoru tabaski lu mel ne tawaaful ifaada nga xam ne wër kaaba wër la boo xam ne ci aj ponk la ci ponk aj yi moom itam ñu ngi koy def ci bisu tabaski bi ak yeneen xeetu jaamu yàlla yu bari yoo xam ne dañ koy def ci aj màkka di ko def ci fan yooyu kon loolu ay jaamu yàlla loo xam ne fukki fan yi da ko jagoo euh, bokk na ci jaamu yàlla yi nga xam ne fukki fan yi da ko jagoo mooy jullik tabaski gi julli googu naam du waaye nag sunna mu akkada la sunna la su fedd ko soo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa def te mos koo bàyyi te itam digle na ko ci képp ku ko man mu julli ji iid tabaski julli googu lu baree bari ay ngëneel la te bari ay tuyaaba lool yàlla waxoon na yonente bi sallallahu alayhi wa ko fa salli li rabbika wanxar jullil te boo noppee nga rey sam tabaski kon julli googu daa bokk ci jaamu yàlla yooyu bokk na ci jaamu yàlla yi feddale ko itam ci bis yi mooy tabaski mi ndax fasal li rabbika wan xar lañ ko wax boo jullee ba noppi dama rey sam tabaski e, incha allahu lu jëm ci àtte tabaski mi nu mu war a mel ak yéen ca sàttal bañ ak lu jëm ci àttee jullik tabaski googu yooyu yëpp incha allahu defal nañ ko ay audio lu mat juróom-ñeenti audio yoo xam ne leeral nañ te la ëpp ci àtte ya allahu bu weer wi teeroo rek danañ ko tàmbali di dugal ba képp koo xam ne topp ko da xam la ëpp ci àttey xar mi ñuy tabaskee wala boog béy wa wala nag wa nam war a yëpp ak itam incha allahu àttey la ëpp ci jullik tabaski gi waaye daal ñu xam ne E, julli tabaski ak rey am tabaski e, yooyu yëpp daa bokk ci jaamu yàlla yi nga dafa ràññeeku ci fukki fan yi yi njëkk ci weeru e, tabaski bi foofu danañ fa profité rek wax ne tabaski nag buñ ko ci Sénégal ñu bari jàpp nañ ne ku am soxna rek moo ko war a def waaye ñu xamle ne tabaski mi amul amul benn relation ak am soxna nit mën naa tabaski même bu amul soxna ndax tabaski gi ak jaamu yàlla la kiñ ko sàkku ci moom daal mooy ko ko man même bu dee jigéen la sax mën naa tabaski jigéen ji sëy ci sax te yàlla may ko wërsëg bu ko neexee mën naa jënd am tabaskeem rey ko jaamoo ko yàlla ndax ak jaamu yàlla la ak jaamu yàlla la bul ne rek sama boroom kër rey nam am tabaski kon jërul may rey soo ko mënee rayal yow soo ko mënee yow soxna si rayal am tabaski yow tam jaamoo ko yàlla kon daal tabaski moom ajuwut ci am soxna wala am borom kër képp ku ko mën daal moo xam góor nga moo xam jigéen soo ko defee def nga lu baax te itam ak jaamu yàlla la goo xam ne bokk na jaamu yàlla yi gën a rëy ci bisu tabaski bi kon ci ñetteelu audio bi ba tey ñu wéy rek ci fàttali ay jaamu yàlla yoo xam ne yu fàttaliku la ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski jaamu yàlla yooyu bokk na ca woor fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski sopp nañ lool ku koy woor ndax xam ngeen ne koor Eh, dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a rëy ba yàlla wax ne man yàlla maa koy fayal sama bopp gannaaw nag noonu la toll kon dana baax lool itam def ko ci fukki fan yi njëkk ci yoo yow tabaski nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam na mooy bis yàlla gën a bëgg ko ko ci jaam kon koor gi ku ko man ku mën a woor fukki fan yëpp baax na ku ko mënul tam eh, loo ci mën a woor rek baax na waaye rawatina nag bisub juróom-ñetteelu fan bi ak bisub juróom-ñeenteel bi bisub juróom-ñeenteel bi moom mooy bisu arafa bis bi nga xam ne ci la ujaaj yi taxaw arafa bis la bu baax a woor boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ko woor yàlla dina ko jéggal bàkkaari atam ma weesu ak bàkkaari at may ñëw kon loolu lu baree bari ay ngëneel la waaye bokk na ci xeetu jaamu yàlla yoo xamante ne feddliku na ci fukki fan yooyu mooy bu weeru teroo rek dañuy bëgg kuy baril ay kàbbar su weeru teroo rek dañuy bëgg kuy baril ay kàbbar loolu mooy at takbir al mutlaq kàbbar yooyu yàlla wax na ko ci alquran ndax al buxaari jël na ci ibnu abbas mu ne wax gi yàlla wax ne wa yazkuru smallahi fi ayamin maalumaat ci suratul xajji ne loolu yàlla mi ngi ci jublu kàbbar yi ñuy kàbbar bu weer wi teroo wax gi yàlla wax na nag wazkurullaha fi ayamin maadudaat loolu yàlla mi ngi ci jublu kàbbar yi ñuy kàbbar tambale ko ci bisu tabaski bi ba ci fukkeelu fan ba ak ñet moy attaque bir al-muqayyad eh, kabar yooyu dafa am njariñ ba nga xamne al bukhari neena sahabi bi tuddu Abdullah ibnu umar ak eh, Abu Hurayra nañ def ñom ñaar bu wër wi téro rek ñuy dugg ci marseille di kabar kabar yoyu di ko wax ca kaw ngir ko wala nit ñi ngir ko nit ñi kon bu weeru téro rek eh, ngay kabar kabar yu bari lo ci man nga diko def soo demee nak ba bisu tabaski bi nak ba julli tisbar ba noppi nak nga tàmbali la tàmbalee fofu ba ca fukkeelu fan ba ak ñett saa yo jullee julli farata ba noppi nga wax kabar yoy lo man lolou mi ngi tàmbale ci tisbaari bisu tabaski bi ba ca fukkeelu fan ba ak ñett ci suba bo jullee suba ba noppi foofu lay eh kabar yoy bari na ay façon e, ku mu neex man ngay wax allahu akbar ñetti yoon wax la ilaha illallah ben yoon waxaat allahu akbar ñaari yoon wax walillahi alhamd kum neex itam man ngay wax allahu akbar ñaari yoon wax la ilaha illallah wax allahu akbar ñaari yoon wax walillahi alhamd kum neex itam man ngay wax allahu akbar ñetti yoon ba ada nga teg ca kabira di ko baamu ku mënul yooyu itam loo man ci xeetu kàmbaar rek di wax allahu akbar lim boo ci man e, ba tey baax na waaye kon ñu xam ne daa bokk ci jaamu yàlla yoo xam sopp nañ ko lool ci bu weeru ak ci bisu tabaski bu tàmbalee ba ca fukkeelu fan ak ñett suba bismillah kon suñ ñeenteelu ojo ci la ñuy jeexale euh, ba tey rek ci xeetu jaamu yàlla yoo xam ne feddaliku na ci fukki fay njëkk ci weeru tabaski euh, bokk na ca mooy julli ki ayit gi julli googu ñu julli ci euh, bisu tabaski bi julli tam itam sunna mu akkada la jaamu yàlla lu gu am doole lool te bari ay ngëneel te baax lool kon képp ku ko mën itam nga julli ci lu aju ci attee julli kooku ak nañ koy defeek kuñ ca xeetu kàbbar yaak yooyu yëpp incha allahu defal nañ ci ay audio eh, su weer wu teroo danañ ko tàmbalee dugal su ko defee danañ ca leeral lu at ci attey tabaski mi ak attey julli googu incha allah waaye ñu xam ne kon ci jaamu yàlla yi ñuy def fan yooyu ci la bokk bokk na ci xeetu jaamu yàlla itam yoo xam ne sopp nañ ko lool ci bis yi Eh, laa gën a fàttali ko ci bis yi mooy di ñaan yàlla say soxla ndax bis la yu baax eh, bis la yu yàlla wormaal bis la yu yàlla màggal kon sopp nañ ko ci bari looy ñaan rawatina nag eh, ci bisu juróom-ñeenteel bi mooy bisu weeru Arafa ndax bis boobu moom day bis bu rëy boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy bis bi yàlla di ëpp lu muy góoreel ay jaamam ci safara bari mooy bis bi nga xam ne bu jotee yàlla dafay bég bay puukarewoo jaamam ñi ci kanamu malaaka yi kon bisse bu rëy kon sopp nañ ko ciy ñaan rawatina ginnaaw bu tëkkusaan jotee jëm timis am na ci saalixoon koo xam ne ci gaa yu baax yi koo xam ne wax na ne man day mosuma fàttali ko genn ñaan gu ma ñaan yàlla ci tëkkusaani bisu arafa lu dul ne yàlla may na ma ko kon sopp nañ lool ku bari ay ñaan ci rawatina nag li tàmbalee ci tëkkusaan jëm timis lépp lu waaye am ci aajo ak ci soxla na ko ñaan yàlla ta sellal ko te gëm ne yàlla mën na ko ko may Eh, su ko defee koor googu ñu waxoon sànq nga xam ne moom la ñuy woor ci bisu arafa bi moom bu dee ko aji màkka moom duñ bëgg mu koy woor ndax day bés mu néew doole moo tax waaye ku ajuwul lañ sopp ci moom mu eh, woor ko eh, fi nga xam ne foofu lañuy ñuy jeexale mooy koo xam ne nar ngaa tabaski koo xam ne nar ngaa rey am tabaski su weer wi xasee ba teru dañuy bëgg nga jàpp say kawari bopp ak sa kawari yépp rek ak say wex bañ koo lelli ba bisu tabaski ba ba nga day sam tabaski ba noppi képp koo xam ne da ngaa tabaski daal su wéeru xasee ba teru ñu ne wéeru tabaski teru na bu dagate dara ci say kawar mbaa ngay lelli say wex ba bisu tabaski bi boo ju boo tabaski waa nag boo ju liggéey ba ñëw ba day sam tabaski nag soo bëggee watu nga watu soo bëggee lelli say wex nga lelli say wex leen liñ ci yokk itam moom mooy tabaski mi bisu fukkeelu fan moom mooy biñ gën a sopp ku ci rey sam tabaski waaye ku ci amatum tabaski itam wala nga am ngànt ba mën a rendi itam di tàmbale ci bis boobu ba ca eh, ñett fan ci topp yëpp wala ba ñaari fan ci topp yëpp masin saara yi am tabaski yooyu yëpp dana gën a leer ci audio yi ñu defoon ci wàllu tabaski yàlla ñu yàlla nangul ñu ñu fekkee eh, weer wi ay at yu bari te yàlla nangul ñu jaamu yàlla yëpp di ñaan rek ojo yi képp koo xam ne jot ci nga tasaare ko lu mu gën a yaatu moo ci gën ndax tiyaaba ji gën a bari salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu